ñu defal benen leçon bo xamni genre exercice lay doon pour que ñi nga xamni ni ndax xàmme nañ jàng mak yoy inshallah leçon bo mo ci top moy 9e leçon bi inshallah waye leçon bi ci la harafi li jeex ta ci la fa masque ci kaw ci lay jeexee inshallah allah commencé ci a ba ja da ha wa za ha ba يا ك لا م ن ص ع ف ض ق ر س ت ث خ ذ فوفلا نيمون ان شاء الله ني ورا جال تي غ غ ش ما تاي فوف امنا بليرال نخ za bu njëkk bi boo koy wax faaw mu nga am noo def sa làmmiñ bi ci sa biir nga xam ni mooy tax prononciation bi mën a génn da nga naan za da ngay jël sa catu làmmiñ bi mel ni ko ko taf ci sa catu bañee wa da ngay mel ni ko ko lem ci biir gémmiñ nga xam ni boo ko deful noonu rek xaraf bi dëgg-dëgg bi ñu soxla mën naa bañ ñëw kon da ngay da ciy dem sa kenn laay kantar rek allah da ngay def wa sha ñu baña jaawale a ak ra ndax boo xoolee a mooy mooy bi nga xam ni du am tomb ra nag mooy bi nga xam ni dafa am tomb mooy bi ngay gis nii kon am na différence sa ak sha tamit am na différence ndax boo xoolee sa amul tomb waaye shin bi dafa am ñetti tomb kon loolu mooy seen différence kon da nga naan wa ra sha wa ra sha ra ra sha